الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مبوكي غامبيا سين بوكا محمد Lamine لي مولين دي di دي لين leen baalu àq te di di ñaan yàlla subhanahu wa taala boole ñu jégal suma audio bi nag li ko waral mooy bëgg gi nga xamee ne bëgg naa ko réewi gambia te yonent bi muhammad salallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun jullit ñi moom la ñuy roy wax nañu ne bëgg sa réew dafa bokk ci gëm yàlla réewi gambia réew mu yàlla barkeel la tey tamit am na loo xam ne mu ngi raam te bu nu ko seetaanee rekk amoon na mu jëm ca ñag ba comme ni ko olof di waxee rek liy raam ca ñag ba la jëm te dara yóbbeewul ñu ko ludut jubadi ak ñàkk dëggu bi nga xamee ne ñi ne ci kaw ñuy oyee politiciens si ñi nga xamee ne ñoom ñoo toogoon taxawal benn kàddu ba ñépp gëm ne ñoom lañ wax mooy dëgg waaye ñu toog ba ci digg rekk ëpp doole ci ñoom génn sa lañ waxoon li ma bëgg a wax rekk mooy ba ñu dajalooyee jàpp ne ñetti at la président bi di toog ñu toogaat ba ci digg ëlbatiku ne constitution bi juróomi at la wax kon juróomi at lay toog loolu lépp lu ci mën a nekk war nañ leen koo mën a nangul parce que jël nañ sunu yaakaar teg ko ci yéen ne ngeen doxal waaye ngeen orñu foyantoo sunuy bakkan ba teg ñu ci situs boo xamee ne sunu xel dalut mu mel ni yéen daal seen bopp rekk ngeen fa nekkal soo bàyyi xel ña doon wax ne constitution bi juróomi at lañ wax ñu ëpp doole si ñoom tey ñoo ëlbatiku ne ñetti at mooy li nga xamee ne moom lañu toogoon waxtaanee ko ñetti ot yooyu nag ñu ne fi mu nekk jot na kon président bi lam waxoon na sàmm kàddoom yooya waaye ñoom itam fàtte nañ kàddu yi nga xamee ne moom lañu ñu bokkoon fasandoor mu mel ni ñoom ñëpp ay oraatekat lañ or nañ réew yi Gambia fitna bu amee ci réew mi wallahi ñi ko waral mooy ñooñu ne ci kaw mooy ñooñu nga xam ne ñoo booloo woon waxtaanoon ci ay kàddu dëgëral ko ba réew yi Gambie yëpp jàpp ne ñii liñ wax mooy dëgg ci ñoom tey ëpp doole ci ñoom olbatiku ñëw bëgg indi fitna ci réew yi Gambia maa ngi leen di wax nag ne réew réewi Gambia wallahi kenn mënu faa indi fitna te képp ku fa bugg indi fitna ci sa bopp bi rek lay këpp xaatu waaye waaye yërëm leen nit ñi yërëm leen nit ñi dëkkee réewi Gambia yërëm leen baadoola yi na ngeen bàyyi di ràcc di tey seen kanam yaakaar ne lu baax pour yéen rekk la di toroxalee nit ñi nu mu leen neexee di ëlbati constitution bi nu leen neexee di toog di tuumalaate ëpp doole si yéen di wax wax yoo xam ne du dëgg barki démb rekk am na benn audio bu ma déglu koo xam ne yaakaar naa ba muy fen sax yëgutoon ne ñu ngi koy récolte gannaaw gi mu ñëwaat di baaluwaat ak ca fen ya nga xamee ni mu ngi ko doon fen di gëm gëmloo nit ñi loo xame ne nii dara du ci dëgg ngeen yaakaar nag ne yéen ñiy def loolu di am jàmm da ngeen di nax seen bopp wallahi ku nar a indi fitna ci réew mi fitna bi ci sa bopp bi lay delluwaat waaye ndaw ñi maa ngi leen di fàttali di fàttali suma bopp ne ndaw dafa am noo xamee ne noonu la war a mel ndaw dafa am ñoo xam ne ñoo ñu la war a roy am ñoo xamee ne ñooñu la war a déglu am noo xamee ne noonu la war a doxee am noo xamee ne noonu la war a jëfee su fekkee ne bëgg na kanamam rafet bëgg na mujjam rafet royal ñi jara roy àndal ak ñi jara àndal déglul ñi nga xam ne ñoo jara déglu ña nga xam ne lañ lay wax lu baax la ci sa future lu lay jëmale kanam la waaye ñoo xam ne seen biir yëpp ci naxaate lañ ko teg su su baaxee si ñoom rek ñu rafetlu ko parce que gis nañ ni seen njëriñam ci waaye bu bu fekkee ne mbir mi seen njëriñ nekku ci su boobaa rek ñu ëlbatiku doxee ci anam boo xamee ni anam bu doy waar la nekk jaam ci saa si weddi ci saa si bàyyi leen xel ci ñooñu ñooñooy ñu doy waar ñi nga xamee ne nag ñooy yàq réew yi Gambia lépp luñ la wax sekkil la nga xamee ne moo leen ci njëriñ rek ñoom loolu doy na leen waaye jëfuñ ko pour réewi Gambia defuñ ko pour Gambia defuñ ko pour dëkk bi lañuy def yëpp seen bopp kese moo tax ñoom ñu di ko def kon nag nit kuy doxee noonu soo ko bëggee topp ci bëgg-bëggam topp ko bam la tàbbal ci kàmb goo xamee ne yàlla xam kañ nga fay mën a jóge dafa mel ni kon yaa doye di yow si sa bopp ñàkkal sa bopp fayda te nag olof dafa am baat bu muy wax mu ne mbaam lu mu nangu rek teg ko ko ayu yéen ndaw ñi nag yéen ay piw ci réew mi am na ñu nekk ci diaspora bi di leen puus ngeen bëgg a dem taxaw ci naaj wu tàng woowu bëgg faa nekk di saagaxante bëgg faa nekk di xaañante am na leneen lu gën loolu jàpp leen seeni kart bu sànni kart jotee ngeen seet ki nga xam ne moom moo leen doy ngeen jox ko seeni carte te ne noppi te ne teg noppi bàyyi jàmbaatu bi bàyyi wax ju bari bi bàyyi saagaxante bi bàyyi xaste bi te xam ne loolu du yëbbu réew te gis nga nit nit nite mooy garabam wolof day wax nit nitay garabam waaye nit nite ànd ak sa xel xam li la war a njëriñ nga dox ci wallahi mooy sa garab waaye di yagar yagari di toppaate ci ki nga xamee ne du xel du ci am-am du ci doole amul lenn loo xam ne moo la si njëriñ lu dul yow yaa koy njëriñ ci waxtu wu nekk nga ne da ngaa ngir da nga ne da nga bëgg ko ñaata nit ñoo fi dee ñoom politiciens si nekk foofu noonu ci kaw ay nit yu leen daan topp ñooña seen bakkan jaral leen lu ne bañ deeyee ndax lijjanti nañ leen ndax lijjanti nañ seeni famille ngeen teg loolu seen bët bi waaye terewut ba tey mu ngi mel ni rek dafa am lu ñu leen jox ngeen lekk wala ngeen naan ngeen di yagar yagari di leen topp ñu leen di um, bàyyi ci naaj wi te bu fekkee ne dañ ne démonstration jot na kenn si ñoom daanaka du fa taxaw seeni njaboot kenn du fa taxaw yéen ngeen fay taxaw te bu ñu leen di rey yéen la ñuy rey ngeen nangulul ah du bokk si fulaak fayda man de defaluma ko kenn su ma amee lu ma naqari daal dinaa téye suma kart bu waxtu sànni jotee ma seet ki ma gënal ma sànnil ko ko waaye duma fi xeexal kenn du ma fi saagaal kenn waaw parce man su may soxla fajogut may kutur kuturi pour fajal kenen soxlaam mooy loolu parce que koo leen si xeexal ban taxaw rek fàtte leen waaye ba tey du ngeen du ngeen si doxee sax jàng da di yagar yagari rek ñu di leen di nax rek def leen dof waaye àdduna nag mooy kër ku amul kër loolu la yëneenti ba waaw rek la nañu xel bàyyi bakkani doomi aadama yi ñuy fontoo jël nit ñi jox leen seen cër yéen ñi ci kaw bàyyi leen xel nit ñi yërëm leen dimbale leen jàppale leen suñ bëggee réewi Gambie dem kanam tries jot na bii ku ci wëttuwut narse indi fitna wallahi fitna bi ci sa bopp bi lay këpp waaw lii nag dama ko doon baaxee suma mbokki Gambien si rekk li tax mooy rek comme ni ma ko waxoon ca njëlbeen bëgg gi nga xamee ne bëgg naa ko suma réew waaw waaye bu ci kenn gis boppam te ngeen déggoo ko xel itam bu ko déggee xol nga xam lu baax rek laa ci yéene woon ak advice bo xamee ne ma yaakaar ne dana njëriñ moo tax ñu def ko di leen jéggalu àq lu ci yàqu ngeen xam suma xam-xam bu matadi la waye bu rafété tamit ngeen gërëmé ko yàlla ak yonent bi wa axru dawana anil alhamdulillahi rabbil alamin wasalaam الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي غامبيا سين بوكا محمد لمين لي مولين دي نيو di leen baalu aq te di leen baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala boole ñu jégal suma audio bi nag li ko waral mooy bëgg gi nga xamee ne bëgg naa ko réewi gambia te yonent bi muhammad salallahu alayhi wa salam nga xam ne ñun jullit ñi moom la ñuy roy wax nañu ne bëgg sa réew dafa bokk ci gëm yàlla réewi Gambia réew mu yàlla barkeel la tey tamit am na loo xam ne mu ngi raam te bu nu ko seetaani rekk amoon na mu jëm ca ñag ba comme ni ko olof di waxee rek lii raam ca ñag ba la jëm te dara yóbbeewuñ ñu ko